mbokk yu jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci seen site internet sans limite point com ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax leen wax ñu ngi fii tey ci euh, croisement Cambérène xam ngeen ni euh, démb ci ay 23h benn sock moo fi amoon choc bu méttee métti nag ndax euh, benn camion moo mbëkk benn engin ba jaar ci kawam ba boo dégloo sax ñi nga xam ne ñoom ñoo fekkee mbir yi lee ni ñu ko expliqué. nga xam ne accident bi métti na ba métti ba foo ko natt rek mu weesu ko ndax nag euh, boo xoolee yax yi dañ ko doon for waaye deret ji itam foo toll di ko seen ndax dafa dañoo mokk rumbax loolu nag mi ngi xewee fii démb ci croisement Cambérène waaw accident bi ñun dañoo toog fii di ataaya démb ay vingt une bu ñu toogee di ataaya jékki-jékki ma toog ay une minute ma ne mais sama gars yi mais yoon yoonu Pikine bi doxul quoi lu xew gars yi ne ma ah non lu dara ma gis gendarme yi di wàcc ma ne non peut-être c'est normal quoi ak jour férié bi jéegi-jéegi ma gis benn waay buy daw waa ji ñëw fekk ñu toog fi ñuy ataayee nii rek waa ji mu ne grand dañoo pàccal benn camion moo paccal ñaari bopp bopp nit quoi ñu ne ko mais yow attends li ngay wax li est-ce que xam nga est lañ daw ci gendarme yi ñu wax ko gendarme yi après si lañu si si la ñu dem directement ci choc bi mais choc bi moom c'était pas beau quoi waaw c'était pas beau non man euh, wax dëgg yàlla man man métti na ma touché na ma vraiment xam nga mais tamit da ngay xam ne lii yàlla la quoi ndogalu yàlla la mais problème bi mooy ñi yor scooters yi la ñu war a xoolaat ñoom seen doxalin xam nga parce que tamit dëkk mënul ku jóge xam nga doo stigmatiser mais problème bi mooy c'est c'est profond quoi xam nga man depuis 38 ans c'est la première fois may doogu dund gis nit ay nit yu ñuy for di leen dugal si sac dafa dafa dangereux xam nga booy nañu xool nu ñuy dawale te autorité yokk sanction yi parce que dëkk bu amul sanction lii rek lay am ay xale yu dee lii dee si weekend bii nii da xam ñaata la doo xam ñaata la man tamxarit ba léegi ñu ngi may wax ay dese dese pas plus tard barki démb la sama benn booy dee fii scooter Dalifort man demu dama demoon jaale ji journée bi guddi gi ma gisaat lii kon y' a problème na gars xoolaat affaire yi quoi waxuñu bu kenn dawal scooter mais nañu xool c' est quoi le mal ba si baaraam waaw ñoom xam nañ ko ñu koy dawal xam nañ ko ñëpp a nekk en danger fu mu nekk nii ñëpp nekk en danger waaw ñëpp a nekk en danger man daal lu ma doon wax nañu yokk sanction yi ñi faatu nag yàlla na leen yàlla yërëm xare leen ajana waaw ñi ci faatu ñëpp ñi faatu ci accident yëpp si moto si. weekend bi yàlla na leen yàlla yërëm xare leen àjjana parce que métti na démb ku fi nekkul woon xam doo doo mën a mesurer méttiwaay bi waaw. Euh, donc léegi comme li nga wax nii sànq moto yi liñ ciy jànkonteel bëri na bëriwul. ndax comme li nga wax nii accident yi bëri na temps yi booy ku jot rek yor moto di dawal booy am na ci ñoo xam ne mënuñ dawal am na ñoo xam ne mën nañ dawal mais donc en fait tali daal métti na trop. ndax li xew bari démb rek rafet loo rafet la rafetlu wuñ ko parce que lu toll ñaari doomu aadama faatu ci sens yi xam nga loolu doy na waar mais nag nañ ñaaxaat suñu mbokku borom moto yi ñu xool ni ñuy dawalee ci kaw tali bi c'est que tali du fowukaay quoi tali du fowukaay nañ xool ni ñuy dawalee ci kaw tali bu baax a baax a baax. mais d'après ni ñu expliqué accident bi mooy. ñoom ñaar dañoo yëg ci engin bi ñëpp xam nañ ne croisement Cambérène dafa am ay travaux tali bi xat na euh, euh, naka nga mën a doubler foofu noonu benn camion. mais loolu ci yàkkamti la rek parce que des fois da ngay gis ñu baareel ñu foofu boole keneen mais da ngay gis koo xëy ne day jëkk bi ci yàgg rek bëri génn di yàq di ñëkkante ba sax gendarme yi leen boole dañ dañuy dañ lay téye foofu loolu lépp yàkkamte bi gis nga boo yàkkamte ba den ba tëdd hôpital da ngay mujj naa su ma yëgoon nañuy def ndànk rek di teey affaire yi day jërta njëkkante boo dee njëkkante ba ñàkk sa bakkan loolu yaay yaay ñàkk rek kon nag nañuy def ndànk rek daw ndànk dal ndànk wàcc ñibbi sa kër lu la yàlla wër sa boo xëyee ala kulli yàlla bala ngaa wàcc jot di nga ci jot voilà waaw non non parce que da nga leen di wax ni bu leen dem ñu ne la noo dañuy dem mais am na femme yoo xam ne dañoo xam du moom kese am na ñoo xam ne dem buñ ko gisee dañoo xam waaw mais voilà quoi waaw mais seen i mbokk am na dem ba démb am na benn grand bu bu buñ doon laaj ndax xam nga booy mu ne woo xam na booy bopp non dinañ leen gis dinañ leen gis. waaw dinañ ah, mais attends la responsabilité la responsabilité est partagée mhm. mais ñun ñu fi nekk ñun xam nañu euh, am na loo xam ne chauffeur yi dinañ ko def infraction certes mais fii ngay gis scooter. bu doublé bu bu doublé à à à droite ku doublé à droite kooku mënoo ko gis parce que doublé a gos moo fi am mais borom oto yi lu ñu def def def mais attends borom oto bu fi dajeeg scooter mais dix scooter yu fi dajeeg ay oto yu fi accidenté yu ne mais huit yi amuñu pièce ku ci dee yaay perte ku ci dee yaay perte mais gannaaw ñu ñuy naan cag-cag cag-cag baax na mais cag-cag yi ñaata nit la ñu rey ay nit yi perte. est-ce que loolu dinañ ci dinañ ci xalaat c'est ça le problème waxuñu bu kenn liggéey mais buñ la mbëkkee yow li ñu mbëkk amul pièce loolu yéen ñaar ñëppay perte parce que machine boo koy dawal dafa war a am pièce nga réglementaire mais fii boo jëlee mille cak-cak dii si amuñu pièce man maa wax xam naa li may wax man maa ko wax waaw waaw mais casque lañ dul sol da ngay gis booy buy dawal scooter solo la sorte sol ci du sol casque mais attends c'est quoi le problème waaw c'est quoi le problème c'est quoi problème tali bi xat na xatul xol yi ñoo xat looluy dëgg xol yi ñoo xat waaw xol yi ñoo xat waaw waaw maa leen di siyaar di leen gërëm yen ñëpp jaa ngeen jëf waaw jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk yëpp maa ngi nuyu sama mbokk cek-cek maan yëpp di leen ziyaare Ah, waaw loolu moom ñaawlu nañ ko trop wax dëgg yàlla doy na waar lool mais metti na tamit yàlla yàlla yërëm te xaare leen àjjana mais doy na waar trop mais tamit war nañu góorgóorluwaat ñun ñi nga xam ne ñoo nekk tamit ci moto yi góorgóorluwaat ci bu baax bàyyi fo mi parce que mënoo yeb bakkanu jàmbur nekk ci tali bi di fo dëkk yeeg yooyu boo yebee bakkanu jàmbur boo dawal danga ko war a jox àqam boo waree génn génn boo warta génn def ndànk jërta jiitlante kenn di dàqate kii yeeg yooyu noonu jox ci jox ku cër soo ko defee rek mën nga xëy ba wàcc am jàmm keneen koo yem am jàmm mais mënoo nekk ci liggéey bi benn seetoo ba pare dawalewu dawaloo normal lenn doo am sax yenn doo am sax client parce que koo yeb benn yoon boo ko dawalee yenn dawali boo ëllëgee du la jël. mais nañu mais xamuñu ba léegi seen famille moto bi amul kayit ñoom tamit amuñu carte d'identité est-ce que yooyu itam yéen ciy bàyyi xel. waaw waaw loolu moom danger bu rëy ndax même boo amul même boo amul kayit sax nga mën a yor sa carte waaw di ko doxantoo c'est que loolay wane ne Sénégalais pire nga carte d'identité moom lépp nga mën a ñàkk sauf carte d'identité waaw man sama gis-gis man mii di wax yow nii am na sama carte d'identité moto bi am na papier mais xëy na carte grise ak permis maa ngi koy coché te saa yu ma yàlla suñu borom yombalalee ma am ko rek incha allah dinaa ko am waaw. waaw war nañ ci góorgóorlu la ñu dimbali ñu tamit tamit ñu am kayit tamit wax dëgg yàlla man moom maa ngi sama permis mais wax dëgg yàlla amu amu carte grise moom. affaire yi nag moom carte gis dafa seet trop mais gars yi bëgg nañ ku nekk wax dëgg yàlla nga valable foo traîner mën a am sa jàmm man moom wax dëgg yàlla damay teel a xëy moom mais damay guddi damay teel a wàcc. sinon naka liggéey bi euh, yan situation ngeen di jànkonteel fii nii. waaw liggéey gi moom métti na trop benn liggéey neexul c'est que moom boo déggee livraison rek métti na c'est que façon nit ku ne ngay jaakaar client bu ne ngay am da ngay dem tey war a livrer nit. pour nga jot ci moom rek problème lay doon ko pour nga dem ba ci moom rek problème lay doon waaw mais nag sant yàlla ginnaaw moo gën jaar mu ngi foofu léegi la fi jaar xam nga te ñun sàccuñu dañuy daan suñ doole rek xëy na ku ñu dimbal jàppale ñu pour liggéey bi mën a woyof ci ñun loolu rek lañ soxla mais du leneen. bu ñu leen doon dimbale tey eh, ci ban côté ngeen bëgg ñu dimbale leen exact. dimbal bi. ci côté bu nekk ndax côté ci kaw talibi don na nañu yomb bu ñu yombalaloon euh, papier yi comme lu mel ni carte grise ah nu xool ne oh, moto dafa war am permis spécial ñu yombalal ñu permis moto spécial. ah loolu xëy na boobaa dinañ ko jante wala soit loolu bu mënul nekk ñu def chaque fin du mois moto yëpp di dagg quittance wala zaaru assurance yooyu noonu waaw loolu bu ko defee liggéey bi dana xaw a ñu wàññi jàpp bi ci kaw tali bi encore loolu rek mais leneen. ci wàllu liggéey bi yan problème ngeen ci jànkonteel. non affaire yi moom metti na moom moom wax dëgg yàlla moom metti na mais dañuy sant rek parce que njàpp mi sax léegi sax mën na ne moo doon sonal ka kii gën a sonal mais instant yi moom mën na ne wàññeeku na moom. agression yi tamit des fois tamit nga dégg ñu ne parce que fii nii fan yii la agression nañ suñu benn booy fii nii ba xaw koo gaañ ba yàq ma tool waaw. moom teel a xëy teel a xëy teel a wàcc rek man moom noonu laa koy doxale moom wax dëgg mel ni kilifa nga de non waaye sant yàlla a wàcc bi waaw man moom wax dëgg yàlla noonu laa koy doxale bàyyi xel ndax guddi gi des fois nga yëpp koo xam ne nii doo bàyyi xel ci moom man bu xas timis xasee jot bu ma la xamut wala nga joxoo ma livre so daanaka ma la yëpp mhm. man noonu laa koy doxale moom wax dëgg yàlla gars yi yëpp xam na man damay teel a dinaa teel a xëy nag moom mais damay teel a wàcc moom guddi moom bokku ci li may teel a noppal sama yaram mhm. su fajar jotee six heures ak quelque génn naa ñëw xëy si noonu laa koy doxalee. ban message ngay lancé. waa ñu gën a góorgóorlu rek gën a def ndànk rek daal def ndànk ci tali bi te xam ne bakkanu jàmbur nga yëpp saa su xëy bakkanu jàmbur nga yëpp del jox machine du fawukaay machine benn du ci fawukaay boo ci nekkee rek jox ko àqam waaw loo xam ne lu jëlugul loo ci daanu lu ndaw ndaw xoosu nga kon nag waroo di yab nit ki ba koy bay fawee bakkanam ba di ko kii ak yooyu nan ci gën a góorgóorlu daal c'est rare laa yëpp damay toog nii gis ngeen ni ngeen ma fekke ñii ñu toog suñu téléphone la ñuy liggéey en fait waaw suñu téléphone rek la ñuy liggéey duñ yëpp nit xëy na nag euh, du caage ne xëy na li xew moo tax ñuy ñuy ñuy participer nii mais mën nañoo yendu ba ngoon jot toute la journée wala une semaine boo xamante ne duñ yëpp nit waaw. merci jërëjëf ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal moto ak ñi nga xam ne ñoom ñooy chauffeurs yi maanaam camions yi wala nga yor particulier lu mu ci mën di doon nga daw ndànk ndax nag tali bi xatul xol yi rek xat ñii ñaan rek ñi nga xam ne itam ñoom la ñu mbëkk yàlla leen yàlla yërëm xaral xarale aljanna jéggal leen seen i dem nañu fi nga xam ne moom mooy ca kaas ba gis ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal moto jakartaay ñëw nañu tamit fi nga xam ne moom mooy croisement Cambérène laaj ñi nga xam ne itam ñoom ñooy dawal moto Jakarta laaj leen naka la ñu gisee bi la choc ndax boo xoolee ñi nga xam ne ñoom la ñu mbëkk borom euh, scooter bi euh, soluñu takkuñu li nga xam ne moom mooy masque euh, casque en même temps itam moto scooter bi amul woon li nga xam ne moom mooy kayit ñoom itam amul li nga xam ne moom mooy kayit d'après information yi nga xam ne am nañu ko ci seeni téléphone ci lañ mujj sukkandiku pour mën a xam exactement seeni mbokk fan la ñu nekk mu nekk nag euh, mbir mu doy waar accident bu metti bu doy waar xewee fii ci croisement Cambérène sans limite point com ñëwoon ànd ak yéen indil leen yile xibaar ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun.